donc campagne bi président wax ne ko ñep euh, développer pour ar ar vraiment askan bi donc ñu ngi koy développer ci gare routière yi euh, ci euh, point de vente xar itam ngir ñi amul sen masque jox len masque ñu ngi distribuer manam 10 000 masques 10 000 masques ak ay gel hydroalcoolique pour nettoyer loxo yi ci fan yu ji tabaski ak fukki fantam bu wess tabaski loolu campagne bo xamne dañ koy dooree Dakar dinañ ko xol nak pour démultiplier ko ci région yi euh, te euh, rencontrer nañ vraiment adhésion euh, Manam chef de gare yi ba ndaw ak gare ñi dem dinañ dem Colobane dinañ dem tam gare interurbaine bu Dakar dem dik ñu ngi ci kontaan torop ndax am ño xamne ne peut-être mënuñu jënd jënd masque ndax new doolé am ño xamne dañu faté sen masque té masque moy li mëna ar nit ñi yaa sol sa masque maa ngi sol sama masque donc transmission bi euh, masque rek mo meuna couper chaîne de transmission bi pour euh, feebar bi mbass mi delu ginaaw euh, fi ci Sénégal. waaw tay dañu ñew lancer ben campagne ci ndigelu njitu réew mi waaye ci njitu ministre Oumar muy ministre des infrastructures des transporteurs et des encavements ñu lëkkaloo ci nak ak AGEROUTE Sénégal mi nga xamni mom moom la ci biir ministère bi direction des transports bi nga xamni mom la jité ak ben partenaire bu ñu woyé Partners West Africa. ñoom it ñëw wàll si ñu ci wàllum xeex bi ñu indaale nag lépp luy xeetoo wàllu masque lu toll ci ñaar fukki junne masque boo ko boolee indi nañ ko indi lu toll ci fukki junne ay lu ñuy woowee ay gel hydroalcoolique ak produit donc euh, euh, anti antiseptique pour que nit yi mën a euh, faggandiku ci wàllu mbas mi mbas mi mu ngi fi ñu ngi jëm ci tabaski ñëpp xam nañu période tabaski tabaski ñëpp dañuy jóge ci réewum taax yi di dem ci yeneen dëkk yi di fa jullee ku nekk bëgg a dem julli sa njaboot te kooku dafay nécessité déplacement population yu bare moo tax ñu ni nañu dem ci biir gaaru ceer yi d'abord joxe fa matériel yooyu sensibiliser ñi ci wàll woowu ñëpp jël engagement ni daañu fexe ba mbas mii de du lawee ci secteur transport duñu wax mukk ni ci gaaru ceer la jóge law duñu wax mukk ni ci chauffeur la jóge law duñu wax ni ci transporteur la jóge moo tax ñun ñëpp jël ay matuwaay booleeg jumtukaay yi nga xam ne ministre bi jëndal na ko jox leen ko ci wàllum gel ak yu ñu demee ñoom it ñu jël seen propre moyen jël disposition yooyu ba nga xam ni tey foo foo dem ci gare routière donc euh, ci en tout cas boobu lu ñu defee tour bu léegi gare routière yu ñu dem yëpp respecté respecté ñu loolu gare routière boo marché lañ jógee nii lancé fa campagne ba tey ñu ngi fii si gaaru Sénégal dem dikk te fas yéene ñu dem gaaru Colobane après lawal ko nag campagne bi bir garu gare régional régionale yeeg départementale si biir dëkk bi yëpp su ko defee ñëpp mën a ci xeex bi ñëpp mëna daan virus bi ku nekk mëna a tabaski si jàmm. ñu am lu ñuy woyé ben ben accord ak euh, euh transporteur yi ak recherche gestionnaire garu routière yi ñëpp jël engagement ni dañu fexé ba mbass mi dé du lawee ci secteur transport. duñ wax mukk ni ci garu routière la jóge law duñ wax mukk ni ci chauffeur la jóge law duñ wax ni ci transporteur la jóge motax tax ñun ñëpp jël ay matuwaay. booleeg jumtukaay yi nga xam ne ministre bi jëndal ñu ko jox leen ko ci wàllum gel ak yu ni demee ñoom it ñu jël seen propre moyen jël disposition yooyu ba nga xam ni tey foo foo dem ci gare routière donc euh, ci en tout cas boobu lu ñu defee tour bu léegi gare routière yu ñu dem yëpp respect respecté ñu loolu gare routière boo marché lañu jógee nii lancé fa campagne ba tey ñu ngi fii si gaaru Sénégal dem dikk te fas yéene ñu dem gaaru Colobane après lawal ko nag campagne bi si biir gare routière régionale yeeg départementale si biir dëkk bi yëpp su ko defee ñëpp mën a ci xeex bi ñëpp mën daan virus bi ku nekk mën a tabaski. gunge euh, état du Sénégal à travers ministre ministère bi nga xam ne moo yore lépp li nga xam ne mooy tukki euh, moo englobé chauffeur yi ak ñëpp ñoo xamante ne dañuy voyager léegi nag comme euh, ñu ngi waajal tabaski bi nit ñaa ubbi nañ tali yi pour nit ñi mën a dem seen dëkk yi dañu war Euh, tukki waaye tukki bi dafa ànd ak ay directive maanaam ministère wax na leen naka lañu ñu war a tukkee ba nga xamante ne euh, mbas mi ci dëkk bi euh, bañ leen ñu bañ ko yóbbu fu ñu jëm ñoom it ñu bañ ko jëlaale léegi moo tax ñu jàppale leen def ay campagne campagne maanaam jàllale ko ci rajo yi ak ci télé yi def ko ci wolof ci joola ci mandeng soose séeréer